bismillahi rahmaani rahim ak ange billahi mina sheytaani rajim bàkki borom Touba mbokku taalibe yi ñu àndal ci suba ba tey ñu ngi leen di ziaraat bu baax a baax comme nun ko àndi woon ci suba ba tey di leen directeur programme bi ba tey ñuy ànd di wéye liggéey bi rek ñoo ngi fii si jàkkee Daaru Xuddoos ñu fi amal benn plateau spécial si thème bu am solo bu si mel ni la non violence dans l'idée de Serigne Cheikh ñu ci ànd ak ñaari université ñi nga xam ne ñu ngi leen gën a ràññee ci wilaya UCAD ku ci mel ni Serigne Mbacke Diakhaté ak Serigne Mbacke Diop ñu bàyyi leen ñu présenté wu laata ñuy aborder wooteem bi sëñ Mbacke Diakhaté bisimilah. Euh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñoo ngi leen di nuyu di leen ziara bu baax a baax ci euh, guddugu euh, tedd yi bis yu tedd yi ñu jëm si ñun plateau bi UCAD la gën a kii mën na ma sauté étape yu bari dal si ci foofu rek bi ñu yàlla indee université aussi comme ni mu fay dugalee ñëpp boo amee sa bac ak yooyu nga dugg fa. Euh, ñu fexe euh, wilaaya ba aussi continuer foofu ci université ñu fekk ko fa dundal ko nekk ci yàlla dogal aussi jamono ji ñu fay nekk aussi ñu jiite fa daayira wilaaya université Cheikh Anta Diop ba niñ fa jógee euh, waaye boobu ba léegi aussi ñoo ngi xam tolluwaayu liggéey bi di ko topp aussi di di ko ànd ak ñoom ba léegi waaw loolu kon ci gàttal mooy mooy présentation bi quoi. jërëjëf sëñ Mbacke Diakhaté kon ñu bàyyi jëwriñ sëñ Mbacke Diom présenté wu. jërëjëf soxna Aram ngi ziare mbokk ñun sitaan yëpp ñu tudd Serigne Mbacke Diop bokk ci wilaya mu ne ñu nekk Touba waaye it nekkoon daayira bi université Cheikh Anta nekk fa ba léegi di fa yëngu suñu liggéey nag nekk jëm ci wàllum njàngale jërëjëf jërëjëf sëñ Mbacke Diop comme nuñ ko déggee ñoonu mooy ñaari jëwriñ yi nga xam ni moom nañ fi dalal tey ab thème bi nag moo nekk la non violence dans l'idée de Serigne Cheikh thème bi nga am solo nga xam ne abordé woon nañ ko depuis le 12 mooy ziar am solo bi nga xam ne moom lañu doon defal Serigne Mountakha ñu bàyyi si jëwriñ yi ñu développé maanaam euh, la non violence dans l'idée de Serigne nan lañ koy jàngatee. Euh, waaw xam naa thème bi thème bu am solo la comme ni nga ko waxee non violence ndax mooy mooy jàmm rek. te euh, buñ ko jëlee euh, comme exemple Serigne Cheikh euh, faw ñu remonter tàmbalee ci Serigne Touba ndax mën nga koo sax tàmbalee ba ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax doonte def na ay xare ki yooyu waaye lislaam ji mu indi rek loolu jàmm lay jàmm lay firi waaw xam naa loolu xëy na dama ci bàyyi ak sëñ Mbacke Diop mu développé ci Euh, mais bu ñu laalee tuuti ci wàllu sëriñ Touba it dañuy xam ne aussi sëriñ Touba moom mm, leeral na ko ci am bindam ne euh, inni ujaahidu bil ulumi wa bi tuqaa kon euh, maanaam coono yiñ ko daan teg ak yooyu mu koy tegoo maanaam mënoon na am violence ndax booba coono yu ko colonisateur bi daan teg ak yooyu day fekk muy dajale am mbooloo te ñoom jamono jooju mbooloo moo leen jaaxal fépp foo xamante ni mbooloo commencé na di fa daje rek dañuy yaakaar ne euh, dañuy euh, organiser benn résistance euh, armée donc ñu jéem a tas mbooloo moomu nga xam ne ni kon sëñ Tuubaa fekkoon ne wàllu violence moo ko jublu comme ni ko buur yee daan defee ca jamono jooja mënoon na cee jublu waaye moom mu ne euh, ab jihaadam ñi nga xamante ni noonu lay doone continuateur yonent bi alayhi salaatu wasalaam euh, moom mooy ci xam-xam ak ragal yàlla la koy defee waaw su ko defee nag ginnaaw Serigne Cheikh mi nga xamante ni moom la ñuy jël référence ci thème bi moom nan la defee euh, continuation boobu Eh, donc Seigne Cheikh aussi mën ta def lu dul loolu ndax eh, pour rappel rek eh, Seigne Cheikh setub Seigne Touba la direct nga xamante ne Cheikh Mamadou Mustapha mooy wayjuram Cheikh Mamadou Mustapha di wayjuru Seigne euh, di dom ci Seigne Touba njëkk koo wuutu aussi donc Seigne Touba ja, fii ñuy defale waxtaan wi rek nga xamante ni fi la signé pacte bi ko génne woon Touba Euh, euh, nga xam ne nii euh, bi loolu ko fi génne woon nga xam ne ci jàkkee daaru xuddoos ji la dugge woon xalwatu we gisante fi ak yonent bi alayhi salaatu salaam mu xamal ko ne ko maanaam sëñ tubaa xamal ko ne ko daal man li ma bëgg fi mu ne nii mooy ñi nga xamante ni ñoo lay accompagner fépp eh, nit ku baax koy dem di ko gisi ñi lay accompagner ñooñu laa bëgg a bokk nga xam ne feneen fooy demit damay bokk ci ñooñu muy waa ahlu badri eh, yonent bi alayhi salaatu salaam xamal ko ne ko ah ñii nag eh, pour nga bokk ci moom vraiment ñoom la leen ci boole woon mooy dañoo xeexoon tour deret donc loolu violence dikk na tour deret te loolu kon weesu na tour deret wëratut a am kon ce qui veut dire que yonent bi xamal ko ne ko li des moom non violence la moom waaw pour nga kii ko donc mu xamal ko ne ko nag ah comme mënatoo def jihaad euh, wàllu tur ak yooyu euh, ay nattu lay doon te nattu yooyu doo ci doo ne oh doo yëkkati. bant booy teg keneen kon non violence bi mu ngi dëkk foofu noonu euh, su ko dee sëñ sëñ Touba nangu loolu xamal ko ne ko bakkan bi daal la xamut euh, la maîtriser wut waaye bu dul loolu moom jom ji ak euh, fit wi dana ko may moom mu mën a tegoo loolu lépp ba génn ko bref donc noonu la demee péripéties yi mu jaar yëpp fi mu jaar yëpp ñu teg ko ay coono muñ na ko te it yàlla dimbali ko ci mu mu mu mu gagné yooyu yëpp ab junj la ci Serigne Touba ci boppam jamono ji mu nekkee njaareem ndax Serigne Cheikh euh, jamono jooju la la la la gane àdduna 1912. Euh, jàpp 1913 donc 1912 la sëñ la sëñ Touba ñëw njaareem te bi ci histoire ñu ñuy nettali ne sëñ Cheikh bi mu ganee jamono indil nañ ko ci sëñ Touba mu ñaanal ko euh, bi mu demee ba nga xamante ni toll na ci waxin maanaam xale lu góor wala yooyu ñëw na ci sëñ Touba. Eh, eh, ziare si ko ni nga koy xamee ci murid gi yooyu bay dellu mu ne sëñ tubaa di wax ne cey suñ borom moo kéemaane ndax maa ngi nii toog maa nga ne di dem loolu junj boobu mu xamal ne ne sëñ Cheikh ma nga moom moomu toog mooy sëñ Cheikh. kon li Serigne Touba incarné woon bi nga xamante ni moo ko jëlee woon tubaa nga xamante ni dellu si waatu fii lu dut dañ ko fee indi te moom la ñuy fàttaliku eh, guddi yi ñu jëm incha allah kon mm, Serigne Touba junj na ne kon kii moom comme mooy moom. effectivement la mu incarné woon rek muy non violence boobu loolu la Serigne Cheikh di war a incarné loolu nag xëy na peut-être deuxième partie bi loolu la Serigne Cheikh bi mu demee ba nga xamante ni war naa jël lengay war taxawal ab benn organisme wala yu demee noonu ba mën a mën a instaurer non violence boobu doon ci un élément euh, déterminant boo xamante ni fi mu cay toll kenn du ca toll bu soobee yàlla loolu xëy na euh, sëñ Mbacke dana ci ñëw wala boog bu ñu dellu see ñu ñu kii ci voilà. jërëjëf sëñ Mbacke Diagne kon mën nañoo jàpp ni loolu conti non violence bi Serigne Cheikh di wax continuité continuité la ndax ci jamonoy Ahmadou Bamba a commencé woon. kon ñu bàyyi sëñ Mbacke Diop moom tamit mu développé. waaw jërëjëf Serigne Mbacke Sonaram. Euh, non violence ni ko Serigne Cheikh mbak gise woon bala ma cee ñew day am tout duma deltu wat deltuwaat indi wat ko muy jëmmi baat bi non violence jëm boobu ndax day baat bo xamni ñu bëri nañu koy dégg sawat na ci suñu mourid gi ak milieu bi ñu nekk waye xamuñu lu muy tekki euh, euh, non violence ñu bëri dañ koy tekkee dund ci jamm dund ci jamm deug la dund ci jamm ci la bokk waye yëmu ci ndax li wax li indi baatu violence ban ci yok no bobu ci tubab nga ne ay mëna ko koy xeex ak xulo waye ñu indi ci no moy lu amut négation loolu day war a ne kon non violence pour mu am il faut kon ay problème am kon non violence yi ni ko mën a tekkee mooy d'abord dundu waaye di ànd ak jafe-jafe waaye jafe nga koy bañ a saafara aw ay waaye nga ko saafara lépp loo xam ne ak waxtaan la ak ba juboo waaye doo indi benn yoon aw yëkkati benn yoon aw ay doo xeex doo xuloo doo doo doo doo doo doo saaga doo def len loo xam ne day indi aw ay waaye dinga nga fexe ba jafe-jafe yi moom u dund ci jàmm nag moom mooy dund te sans jafe-jafe loolu xëy na euh, yàlla moom ci adduna ji nga xam ne moom sàkk na ko dana jafe ndax adduna bi yàlla moo ko dund ak i problème waaye problème yooyee nag ngay fexe ba di ko saafara te doo jëfandikoo benn yoon loo xam ne aw ay la loolu la ñuy wooyee non violence euh, yàlla nag dafa dogal dans cadre général ñun ñu daa jàngal bu nekkee gone gi bëri ci àdduna bi ñu ñuy xamal ci euh, l'ère moderne bi ñuy wax maam ci jamono yu mujj yi ñu ñuy xamal ay ay icône maanaam ay ay nit ñu ñu siiw naa ñu nit ñi kat dañoo def non violence naa ñu Mahatma Gandhi ca Inde naa ñu ay Martin Luther King ca euh, euh, États-Unis ak yu mel noonu di ñu gëmloo ne ñooñu moom li ñu li ñu jëfandikoo ci non violence maanaam li ñu doon jàmm jàmmaarloo seeni noonu te jëfandikoo woon benn yoon arme ñooy ñooy ñooy ñooy modèle yi ñooy ñi référence yi ba ñu ñu dem ba sax fàtte ni am na ci suñu biir Sénégal gi ñu nekk rek te wat na biir murid gi ñu nekk nit ñoo xam ne liggéey nañ ci loolu loo xam ne mën naa ne sax Martin Luther wala am Mahatma Gandhi liggéey ko woon loolu moo tax thème bi amaat solo am solo gu ko war a indiwaat xamlaat ne nit ñi kat ñun ñun waa Sénégal rawat na ñun murid am nañ delluwaay boo xam ne ci lépp luñ soxla rawat na ci fii ñun nekk nag jamono yi nga xam dafa doon jamono yi violence jamono ay jamono yi xeex jamono yi xuloo jamono yi yëkkantente eh, eh, kàddu yëkkantente ay ay ay ngànnaay kon dey baax au lieu ñuy delluwaat ci ñi nga xam ne ak lu mën a xewit gëmul woon gëmul woon yàlla ji ñu gëm ñun ak ak ak ak ak bi ñu gëm am nañ suñu biir ñu gëm yàlla ji ñu gëm gëm yonente bi ñu gëm ba pare jëfandikoo woon li ñuy wooyee non violence maanaam ñàkk jëfandikoo aw ay eh, nu gën na ko ñële jëfandikoo woon kon loolu moo waral ñu indi thème bi muy lu am solo kon boo li sëriñ Mbacke waxee dafa am solo sëriñ Mbacke jaxate maanaam bu wax non violence ci yoonu silence la jëfandikoon loolu nag boo ko waxee day jaaxal ñu bëri ndax dañuy ñu bëri dañuy décrit yoonu silence am di ko misa misaale di ko melale nit koo xam ne daa xare ak nangam ak nangam waaw dañuy fàttali lu bëri yoonu silence la laata muy xare def na ba lu mat euh, fukki at wala ko teg ci ci ci ci ci ci ci ci ci yonent gi maanaam am na lu mat juróom fukki at nangam doo ko tàmm yàlla jox ko doog ko jox ndigal ci mu xare nga xam ne yàlla da koo digal non violence d'abord ndax am na léeg-léeg mu jamono bi ñuy histoire tax dañuy nettali ba jébbalu dafa ñëw ci yoon islam ne ko lu ñuy làqatu xanaa li ñuy gëm dafa daru dëgg ah, dem ja ja jullee fa ca kaaba ga ak gàddu jaasim am Seydina moom yéene moo nekkoon ca saasi rek mu taam li génn jaasi ñëpp génn jaasi si ñu taam li xeex yoon islam ne ko amuguma ndigal dafa dem ba benn jamono nag ndigalul xarel doog ñëw ndax daa am yàlla ni muy doxale day programme te lépp lu muy bëgg am am na nu mu koy doxale moo tax mu indi ndigalul xeex loolu ba mu demee ba euh, dund yi ba nga xam ne saxaaba yi ansaar ak muhaajiroon ñoom ñëpp moom loon dund ak ñi nga xam ne ñoo leen dëkkaloon day indiwaat non violence ndax yoon salaam dafa indi benn les pacte de Médine maanaam wax ni ngeen dendal te bokk leen diine muy surtout yahood yaag yu mel noonu nasara a fa nekkoon ne ni ngeen di dundee ak ñoom ay du am seen diggante ba ci xeex sax yoonu islam day jàngale ne boo duggee ci dëkk fe ki nga xam ne ab ab ab donte bokk leen diine waaye ab nasa euh, chrétien la wala ab juif nekk ci kiyam di jaamu yàlla waru amoo sañ-sañu rey ko euh, loolu lépp ci ci xam lañu ne du caagee ne arme bi mooy solution bi njëkk waaye mooy bi mucc waaye nag def parfois du mën a ñàkk waaye il faut nga dem ba ñàkk pexe kon euh, buñ ju buñ jugee foofu ñëwaat ci Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne mooy xaadimu rasul moom noonu lay wane la boppam waaye dafa am lu am solo jihaad li ñuy woowee baatu jihaad nga xam ne tey jii boo koy wax sax daanaka nit ñi di tiit ndax jabolise euh, guñ ko jabolise euh, pervertir baat bi ba mujj lu garaw Sëriñ Tuubaa dafa ñëw fekk ni ko Sëriñ Mbàkke waxate Sëriñ Mbàkke Jaxate waxe euh, ci société bi ñu nekk ay buur ay nangam di xeex ñu biir jolof ak nangam xeex xeexante rek moom mooy nag jihaad nangu de naam jihaad am na jihaad lislaam lépp mënuñu ma ko waaye man inni ujaahidu bil ulumi bi tuqa damay jihaadale yàlla waaye li ma koy jihaadale nekkul nag damay gàddu samay ngànnaay war sama fas dem fee xeex ban rayam ma ray ko déedéet waaye ci xam-xam d'abord muy lu am solo dinañ ci dellu si waat wax ci sëñ Cheikh ujaahid bil ulum wa bit ngay am xam-xam ndax boo amul xam-xam sax ragal yàlla dana des ndax yàlla bala nga koo jaam da nga ko xam waaye dama koy jaamu dama koy jihaadale ci xam-xam ak ragal yàlla kon problème yi nga xam ne dinaa ko jànkonteel te ku nekk xam ne Serigne Touba radiyallahu anhu li mu jànkonte ci problème nee nañu ko jànkonteel sëñ sëñ Mbàkke jun na ci surtout tuuti euh, dëkk bi nga xam ne bokk na dëkk yi mu gënoon a bëgg ko lu mat daanaka jege ñaar fukki at mënu fee wala lu ko romb sax euh, mënu fee fexe ba dugg fi ngir euh, ay jafe waaye amul benn bu mu njëkkatee ngànnaay loolu dafa bokk ci non-violence woon Serigne Touba daf koo dundoon Serigne Touba jàng kii ko waaye da ko dund da koo dund mun xam-xam laay jihaadale yàlla moo tax xam-xam bi dafa taam tàmbali woon jàngal ñi nga xam ne moom ñoo nekkoon mag ña seen diine ak lanu lanu war a xam waaye it tërbiya leen tërbiya googu dafa am solo dinañ ci ñëwaat ñu wax Serigne Cheikh mooy dafa bokk ci fondement bi tërbiya mooy lan mooy li nga xam nga jëfe ko al ilmu wal amal Serigne Cheikh xasida mi sax boo koy dëgg liir lu ci bëri ñaar yooyu lay lay boole du wax benn yoon jë xam kese wax benn yoon jëfe kese waaye daan al ilmu wal amal xam-xam bu ànd ak jëfe loolu rek mooy tërbiya sëñ Tuubaa la mu xamoon maanaam xam-xam nag du xam-xamu diine kese mais xam-xamu diine ak xam-xamu ruux waaye da ngay xamal leen diine ñuy jëfe seen diine nga xamal leen ak la ñuy xam xam-xam li ñuy wax euh, science spirituelle seen diine seen ruux li koy yar nga di leen ko di leen leen ci di leen ci tàggat ok ñu ngi leen di ñu ngi lay jaajëfal bu baax jëwriñ sëñ Mbacke Diop jëwriñ sëñ Mbacke ñu bàyyi xel li moo nekkoon plateau spécial bi ñu leen doon indil ci thème bi nekkoon la non violence dans l'idée de Serigne Cheikh nga xam ni abordé nañ ko depuis le 12 mai ci ziar bu doon amal Serigne Mountakha ziar bi ñu doon defal Serigne Mountakha Mbacke yàlla na fi yàgg te kon boog ñu ngi leen di jox rendez-vous suba incha allah si yeneen plateau jaa ngeen jëf. te bul faale ka wuy see ka farje ki Moustapha su fekkoon da ngay laaj carte say candidat na yaa wat ña daawoote ña daawaate Moustapha